actualité bi aussi dafay euh, ñeel euh, li nga xamante ni xew na démb CAF daal di def euh, li nga xamante moo di le tirage au sort des groupes pour la qualification la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 ñu gis Sénégal bokk ci groupe L bi déjà ban lecture nga am ci loolu noonu oui à coup sûr boo gisee bon classement bi pour le Sénégal bi on dirait que dans un premier instant à première vue da ngay wax ni c'est un pool boo xam ne c'est c'est prenable c'est prenable dans la mesure ou euh, le Malawi Burundi aussi c'est des équipes yoo xam ne pratiquement bon seen poids demeewul noonu mm. à part euh, Burkina Faso bi nga xam ne moom peut-être dans le passé peut-être euh, c'est une équipe qui qui s'impose quand même mm. maintenant au-delà de de Burkina on peut dire que euh, c'est un pool prenable pour le Sénégal. pour le Sénégal effectivement.